واشهد ان محمدا عبده ورسوله فصل اللهم وسلم وبارك على العبد القائم الصائم واله الطيبين واصحابه الغر الميامين ايها الاخوه المؤمنون اننا نقول للشهر الكريم كما قال احد اولياء الله الصالحين بقوله yaa xayra dayfin ataa bilbishri walmadadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi laa zilta dayfan kariman zairan abadan mukarraman biqira altaaati wassadadi عباد الله إن شهر رمضان موسم من مواسم الطاعة وفصل ربيع فيه للقلوب حياة وللنفوس جلوة يقبل على المسلمين كل عام ليكون في مجتمعهم تأثير وفي نفوسهم تأديب وفي مظاهرهم إيقاظ بعد أن ضلوا أحد عشر شهرا وهم سائرون في مسالك الحياة ينالون منها وتنال منهم وتعلقت بهم رواسب وأخلاط فالصيام أيها الإخوة يؤدي إلى تقوى الله سبحانه وتعالى يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالتقوى يعني الوقاية ضد قوى الشر ويعني أيضا قوة أداء الأمانة فالصيام ثورة نفسية على العادات والتقاليد التي تستعبد الإنسان وتستبد به فإذا جاء الصوم منعه من الشهوات والأهواء مدة ثلاثين يوما وهذا المنع يجعل الإنسان حرا من سيطرة العادات عليه سواء أكان الضار أم نافعا فالصوم أيها الإخوة يعلم الإنسان الصبر kama yuqawwi iraadata fa baynama yastatiicu alinsaanu an yamudda yadahu liyakula mima yuxibu kama yashaa walakinahu yamnacu nafsahu biixtiyaarihi wa iraadati an akli hada altacaam taacatan li rabbihi wa muraqabatan li jalaalihi fa alsawmu ayuha alixwatu almuslimuun yushciru alinsaan biladcati aljuuc wa maraarati alxirmaan fa ida saadafahu fi xayaatihi aw mujtamacihi من دارت عليه نوائب الزمان فأصيبوا بفقر أو حاجة كان قادرا على تفهم موقفهم وشعورهم فيدفعهم ذلك إلى إغاثة الضعفاء ورعاية المحتاجين كما يشعر الإنسان بروح جماعية هنا يتذكر أن ملايين المؤمنين يصومون معه ويفطرون bokki jullit yi ginnaaw bu ñu sante yàlla noo ngi dellu di tuubal borom bi tey sàkku njëggalam di julli ci yonant bu tedd bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk yi daa mel ni dafa am gan gu mag gu dëgmal si te ku am gan goo xam ne goo fonk la suy ñëw faawu nga waajal ko faawu nga waajal ko gan gu tedd googu nag bokk yi mooy sunu gan gi di weeru koor sunu mag ñu baax ñi ñoom noonu lañ ko tuddee woon moo tax boo demee ci seeni mbind ñu jël ca abdullahi wa xaadimu rasulihi dafa am ñaari taalif yu am solo yu mu def benn bi mu teeroo ko weeru koor bi ci des mu gungee ko weeru koor tàggoo ko ko bi mu teeroo weeru koor nag dafa am solo lool ndax bégte mi ngi ci wane am na ñoo xam ne xëy na jombul ñu ngi tiit ndax marwe xiif bi moom nag bu ko mësaa séen day am mbégte moo tax mu teeroo ko bayitam yu tedd yu neex yi bayit yu ànd ak mbégte ak dalal ko waaye nag waa daal di wax itam jàngalewaale na gan la goo xam ne nag liñ koy terale du luñ koy reyal du luñ koy naan yuñ koy jox waaye ci berndeel ko mi ngi ci fexe ba def ci jaamu yàlla yu mat sëkk yoo xam ne mosoo ko def ci wenn weer kon loolu lañuy gan gi ñëw bokk yi jaamu yàlla lañ koy terale kon nañ ko waajal te fas yéene koo teral te am mbégte ci ak ñëwam mbokk yi weeru koor dafa bokk ci traite yi nga xam ne ku ne xam na bu dee kuy baykat ku ne xam nga traite ku ne xam na ne nag bu dee ci jaamu yàlla weeru koor tereet la ci mooy loo ci def day fulu bu ñu da doon fay fukk dañu lay fay lu ko ëpp bu doon naafila dañ la koy fay lu tolloog farata kon bokk yi weer la woo xam ne kum ñëw ba dem te fàgguwoo ci lu lu dun day mel ni perte nga kon tereet baa ngi ñëw bokk yi ndax mooy weer woo xam ne xol yépp ci lay dunde bu bokki jullit yépp xam nañu ne weeru koor day yar bakkan day yar sunu société sunu yëg-yëg lépp la yar yëg loonu lu baree bari loo xam ne bàyyiwuñ koon xel xam ngeen ni fukki weer ak benn ngi nii ñu ngi doon lekk lu nu neex waxtu wuñ ko wu mu nu neexee mu am benn weer rekk bu ñu jël nag ne danoo bëgg ngeen tàggataat ci seen bopp yaraat ci seen bopp moo tax li ñu taqoon tilim tilim yi ñu taqoon ci weer yi génn fukki weer yeeg benn dañuy fexe ba setal ko wecc ci benn weer wi bi ñëw mbokk yi xanaa doy na sëkk weeru koor ndam rek mu ne li yàlla gën a bëgg te mooy rag ñu ragal ko nee na koor da koy joxe kon ku bëgg a ragal yàlla da ngay fonk koor ndax koor day joxe ragal yàlla te ragal yàlla nag mooy lépp lu baax nga ne ca waaye safaan ba kenn du la ca séen waaye lu ñu la dénk itam da danga cey fexe ba lu ñu la digal nga defee ko nañ ko nañ ko na ko sunu borom bëggee mbokk yi koor dafa am solo lool ci beneen fànn boo xam ne faw ñu bàyyi ci xel mooy kenn ku nekk ci nun am na aada ak lum tàmm ba nga xam ne day mel ni mënatu koo bàyyi am na koo xam ne bu xëyee naanul café euh, day mel ni day tàggook sagoom am koo xam ne bu bëccëg jotee waxtu sàngam bu añut rek dootu mën lu bari dafa mel ni nag koor révolution la boo xam ne bu ñëwee danaan kaay leen soppi nag ni ngeen doon doxe fexe leen ba li ngeen tàmmoon ngeen wan ko ne ko mën nañ koo ba kon révolution bu am solo ci doomu aadama mooy doomu aadama ndeke bu jógee ci koor lépp lu mu bëgg a bàyyeeti mën na ko baax am na koo xam ne léeg-léeg sax waxuma la lu dagan yi waaye safaan yi da koy jëfandikoo ba mu moom ko moom ba loola moom ko weeru koor nag mooy boo xam ne ku ci jóge dara dootu la moom dara dootu la moom ndax léegi moom nga sa bakkan ndax bokk yi seetluwu leen ne ñu bari ci ñuy woor ak lekk ngi ci seen wet am na roq bu ñu mën a dugg itam lekk ko te kenn du leen gis waaye yooyu yëpp da ngaa fexe ba yar sa bakkan ba nga xam ne yaa moom sa bakkan léegi lekk gaa ngi nii nga ne ko waaye doo ci jot de naan gaa ngi nii nga ne ko doo ci jot de leneen a ngi nii lu la lew mu ne do nga ne ko doo doo ci jot yaa ma moomoon démb waaye tey maa moom ndax li yàlla bëgg laay def ci yow loolu nag day mel ni ku ci jóge loo bëgg a bàyyeeti rek war nga ko mën a bàyyi bokk yi koor day jàngale muñ day dëgëral pas-pasu nit ndax ni ma ko waxee sànq loo bëgg a def walla loo mëntoon a bàyyi rek dangay ngay am pas-pasu man koo daal di bàyyi kon dana la jàngal muñ waaye dana la jàngalit euh, am sañ-sañ ci sa bopp ci li neex yàlla mbokk yi koor du rek diggante nit keeg boppam te li ñu jàngale léegi ci ragal yàlla ci muñ ci moom sa bakkan ci jëmale ko fi la neex te muy fa dëkk dëppoog fa neex yàlla loolu day mel ni yow rekk la waaye am na benn bind nag boo xam ne koor daf koy jàngale loolu mooy lan mooy am na ñoo xam ne daanaka mën ngaa wax ni xiif moom bañ koo gëjee xam yàgg na am na ci nit ñi ñoo xam ne bañ gëjee xam xiif yàgg na bañ gëjee xam mar yàgg na su fekkee ne nag yàlla dane nag tey moom kaay leen yéen ak ñi doon xiif amuñu luñ lekk tey moom dama bëgg ngeen mos ko yéen it ba xam li ci ñàkk li ci xiif xëy na xamoon ngeen ko démb waaye mane naa leen gan ba tax na fàtte ngeen kaay leen mosaat ko kon ku xiif danga xam ñi ngay romb ci mbedd mi te bu ñu añee du reer mën naa am sax du añ soo leen rombatee da nga am beneen yëg-yëg bu bokkut ba nga ba nga amoon ca ba nga leen di romb kon mbokk yi loolu ci wàllu social lu am am solo ndax dañoo bëgg nga mosaat xiif mosaat mar ba koo rombati mu xiif nga yëg ko yëgle ko la mu nekk loo ca man ci taxawu ko nga def ko waaye bokk yi koor comme julli dafay yëgloo julli yépp ne ñoom kat ndeke am na boobu buur buñ boo xam ne moom rekk lañuy ñuy jaamu kooku mooy borom bi subhanahu wa moo ne leen woor leen julli ja ca penkoog ya ca sow ñëpp ñëpp ñëpp maase ci def ndigal loolu kon sooy woor da yëg ne am na jullit ñu nekk ci feneen ñoo xam ne ñoom it ñi ngi woor comme yow te loolu dafa am solo mooy da ngay daal di yëg ne du yow rek yëg ne wërta nekk yow rek yëgal ne yaag mbooloo yéen a ànd jullit ñi kenn nga ci ñoom dangay ngay daal di yëg ne kenn nga ci jullit ñi ak fu ñu mën a nekk mbokk yi traite baa ngi ñëw ni ma ko waxee woon nan ci góorgóorlu ci jaamu yàlla def ci lu baax jul jàng alxuraan julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam zikr waaye itam lépp loo xam ne mën noo dimbale ci ñu gën a xam suñ diine ñu góorgóorlu ci am na ñoo xam ne xëy na lañu war a xam ci seen diine des na donte xam ko lépp yombut waaye war ngaa mën a fexe balaa weer we koor wi nga sasoo ci ne li aju ci nàngam moom paséeni naa balaa weer we génn bala ñoo génn weer yi ma xam ko ku nekk na sasoo ci li mu xamutoon ci mbirum njàng mu fexe ba balaa weer wee jeex mu fexe ba xam loola waaye nag bokk yi bala ñoo dugg ci koor gi nañ bàyyi xel ci lan mooy koor rek am na ñoo xam ne jàpp nañ ne bu ñu xiifee mar rekk woor nañ woor du loolu de du loolu rekk bokk du loolu rekk moo tax Sëriñ Tuubaa nee na koor du ñàkk lekk rek de waaye dangay ngay fexe ba sa cër yépp ñoom it ñu woor na sa cër yépp woor sa bët bii bum xool lu xaraam bul dox jëm ci lu araam bul nangoo déglu lu xaraam bul nangoo wax lu araam euh, te bokk yi xam ngeen ne nag daa mel ni seytaane donte jëng nañ ko ci fan yii nag lay góor bu baax ba bàyyi ci sa xol ba nga xam ne yow dana la bàyyee loo xam ne ci xeeti feebar ak tilim tilim bu koor gi ñëwee itam la nga war a def mboo moytuwul doo ko mën a def moo tax sax ñuy waaj ci rajab beeg saabaan bi toujours di waajal ba seytaane du duñu bàyyee dara comme xam na ne moom dañ koy jéng day day profité farlu ci fan yii moo tax am na ñoo xam ne danañ woor waaye nag ña nga ca déglu lu xaraam ne dañ koy dàqee waxtu waxtu wi dàqee koor gi ña nga ca waxtaan woo xam ne ak grand place di ko dàqe koor sëriñ bi nag nee na koor yooyu yëpp da cee bokk kon ñu gën a yëg koor àgg na ci sax foo xam ne xëy na jafe na lool waaye itam am na ñu fa àgg te mooy fexe ba sa xalaat sa xel du xalaat sax ab safaan lu araam kon loolu ni nga téyee sa sa cër yi nga xam ne moo mooy war a lekk war a naan noonu nga war a téyee sa xalaat ba nga xam ne wala sa cër yooyu ci des yépp ba kenn dara du ci laal lu xaraam kon bokk yi loolu mooy dëgg-dëggi koor balañ cee dugg nañ ko bàyyi xel bu baax euh, ndax gan gu ñëw la yàlla ñëw ak jàmm ñu màng ko ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon waxee yal na yàlla barkeelal nu Ramadan barkeelal nu rajab ak Shaaban waaye itam yal na nu àggale ci Ramadan te suñ ci àggee ni yàlla bëgg ñu wooree ko ñu wooree ko noonu ñoo ngi ñaan jàmmi àddina ak jàmmi àlaxira yal na nu ko yàlla defal saxal nu ci ak njubam te mu dëppoog sunas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaanal réew mi jàmm di fi yaakaar jàmm ci weer wi ñu dëgmal ci ne. sunu borom dana fi gën a dolli jàmm dolli fi xéewal dolli fi wër dolli fi ak déggoo ba ñu tabax sunu réew tabax ko ci jikko yu rafet tabax ko ci lislaam yàlla mën nañu ko yàlla na ko yàlla defal xol yépp àndandoo lépp loo xam ne moo ci nekkoon ci ay ñuggu-ñuggu kenn ku nekk jéggal ko sa moroom ñu ànd tàllal loxo sunu loxo sunu borom jaamu ko te mu may nu lépp luñ koy ñaanal ci weeru koor wi ak luñ ko jaamu yàlla na yàlla barkeel sunuy kilifa rawatina kilifa gi nga xam ne moo jiite euh, kilifa diine yi ci ci ci tarixal muridiya muy cheikh Mouhamadul Muntaxa te mu mel ni jàmm rek la seq ak mboolem këri diine yëpp mu yéene ko jàmm mu yéene leen jàmm kon nag ñoom ñëpp yàlla leen yàlla defal jàmm te defal leen ndam kenn ku ci nekk ca fa nga nekk te liggéey ba ngay liggéey islaam sunu borom gërëm ko te yàlla defal nu jàmmi àdduna ak jàmm àllaaxira ni ñu ko ñaane woon alhamdulillahi hamdan yaliqu bi jalaali wajhihi wa azimi sultaanihi wassalaatu wassalaamu ala albasiri bashiri nnadir qaidi algurri almuhajjalin wa alihi wa sahbihi wa ala kulli man daa bi daawatihi ila yawmi ddin ibad allah faskuruu rabbakum ala nicmati almauna ala alsiyaami walqiyam fa alsawmu mawsimun min mawaasimi altaati walibada fa innahu yajibu ala almuslim an yuktira min alibadati wa ficli alxayr fa chanu almuslimi fi ramadan an yatluwa alqur'ana wa yusalliya li rabbih wa yadkuruhu wa yasdaadu cilman wa fiqhan fi umuuri diinihi wa dunyah wa yataxalla bilfadail wa yabtacid an irradail fa hada huwa alsawmu alxaqiqiy alladi yaqulu fihi tabaraka wa taala fi xadiisin qudsiy kulli amali ibni aadama lahu illa alsawmu fa innahu lii wa ana ajzi bi wa yaqulu fi hada shan alaalimu rabbani abdullahi wa xadimu rasuli tumma siyaamu fantabih lam yanxasir fi adami al akli faqat la taxtarir fa sawmu an yasuuma kullu cudwi an kulli ma yufdi fatan li sahwi amsik an alnadari lilxaraami walmasyi walsamci maa alkalaami wa kulli fikratin radiyatin kama amsakta an aklin wa shurbin ulima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 wa yajcaluna min utaqaihi min annaar allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatix lima ugliq walxatmi lima sabaq nasir alxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari alazim